politique yi campement Kër Moussa Fall Tangis euh, Casamance amul bu ma woowu ci combat bi dinañu jàppale seen doom ngir moom ndax combat bi. le 9 juillet bi face à face bi. waaw stade Demba Diop. di jox suma suma ay fans euh, de venir en masse euh, ak yar tekkin ak respect bu leen ñëw ci signature compte ci face à face ba diggante ak Balla Gaye jox di daje le sa leen wax ne daal nañu ñëw ak dal ak tey ak respect pour gunge seen mbër seen xarit ci face à face ak le dernier mot le mooy di woo suma fans nekk ci diaspora bi di woo waa Porte di woo waa EPM EPM euh, président bi di euh, Balla Gajaga ak euh, gars yi nga xam ne yëpp ñu ngi Petit Mbao waaye wu dox kenn waaw PM yëpp maa ngi ci combat bi di waa Forte 23 di lancer appel sama coach suma xarit Ibrahima Ben Madi Diouf waa Forte 23 yëpp maa leen di ci combat bi ñu jàppale seen frère ku tëjee ak ñaari nekk ci Ndakaaru yëpp bàyyiwuma kenn di waa Diouf di woo waa Safel parce que kanyi safi tijan ini go bax ñoo am mbokk ini go bax te du ñaani to raki combat le premier janvier euh, contre Balla Gaye numéro 2 ñu am mbokk ini go bax te du ñaani to yaakaaru na gannaaw na yeneen yaakaar safi tijan séeréer safeen séeréer moom bu naan séeréer rek bàyyiwuñu safeen bàyyiwuñu noonu bàyyiwuñu si bàyyiwuñu waaye nag séeréer safeen mais waa Cikina kàcce nga la maa leen di woo ñun ñëpp di woo Médina di woo waa Fass Kolda Kolobane